maa ngi nuyu sama ministre bu ñaawul bii man léegi waxatuma ministre futur maire laay wax maa ngi nuyu futur maire waaw di nuyu madame Sonko di nuyu Cheikh Ndiaye ak ñëpp ñu fi ñëw di leen ziar bu baax xama nga tey la moom si gën a neex fii laa yaroo fii laa màggee fii laa fubalee fii laa jëlee ndam fii nan ma xamee aw ma daal lu waa Liberté 4 donc madame la ministre dama lay dénkaat waa Liberté 4 ay nit yu jom ñoo fi dëkk ay nit yu valeur ñoo fi dëkk nit ñu gëm seen bopp ndaw yi nga gis nii ñëpp maa leen dénkaat bu baax a baax xam man la ma tax ma sawar àndal ak madame la ministre dëgg neexul gis naa fi ku ne xool naa fi ku ne xam naa ku ne mais xam naa ne moo jara àndal. parce que bi ñu bëgg santé bu ñu bëgg SICAP de référence bu ñu bëgg mu ñëwaat fii si SICAP moom moo ko mën indi si barke Cheikh Ahmadou Bamba man duma àndantu man duma àndantu mukk nit ku baax a ngi nit ku gëm liggéey nit ku conviction moo nekk nii bëgg naa ngeen jàppale ko ga naaw ba leen jàppale Diouf Sarr mu jël mbëri tàmbalee ngeen jàppale ko moom jox ko caabi mairie bi ñu jàppale ko ànd ak moom liggéey xam naa ne moom mën ci ndaw yi moom mën ci jigéen ñi moom mën ci ñëw donc madame la ministre bon man dam lay remercier damay sawar di ñëw fii di ànd ak yow wax naa la ko plusieurs parce que d'abord sama sœur nga kii nit mënu ko xam tànk nekkoo ak moom nitu diine ngi jigéen bu jàmbaare ngi bañkat a ngi donc maa ngi ñaan nit ñëpp ñu fi nekk gannaaw moom lañ sante gërëm leen bu baax ngeen ànd ak moom jàppale ko xam nga jàppale ko mooy lan li yëpp neex na ale zahra neex na jàppale ko mooy jël carte électeur yi dem votel ko moom jox ko mu jël mairie Sicap maa ngi nuyu bu baax di leen siyaar yo jërëjëf sëñ Touba jërëjëf